dal leen ak jàmm mbokk internet yi ginnaaw manifestation yu bëri yu ñuy faral di nemmeeku fii ci Sénégal njaay loolu yi sax moo tax ki nga xamante ni mooy président de la république du Sénégal moom nag gis na li nga xamante ni mooy tension préélectorale yi nu ñuy def ci réew bi di Sénégal njaay loolu sax moo tax mu rencontré ñi nga xamante ni wala sax mu rencontré ñi nga xamante ni ñooy les force de défence et de sécurité ginnaaw nag ba ñu déggee ni ñi nga xamante ni ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi dañuy defaat li xamante ni mooy manifestation le 29 juin bii nii rek ñu dëgmal loole sax moo tax kii di euh, Macky Sall rencontré euh, si euh, talaata bii rek ñu génn foofee ca palais de république les chef des force de défence et de sécurité bu ñu sukkandikoo si ñi nga xamante ni ñooy waa source A ñoom rek ñoo joxe information bi si crédit bi nee nañ nag li nga xamante ni mooy rencontre boobu am na ay personnalité yu bëree bëri yu si bokkoon comme ku si mel nii kii di directeur général de la police ak le haut commandant de et le chef d'état-major euh, général de armées waaye nag ki nga xamante ni euh, mooy euh, Macky Sall lu tax mu def loolu gis nañ ni kat manifestation ñu ngi bëgg ëpp loxo fii si Sénégal loolee sax moo tax mu rencontré ñoo ñi nga xamante ni ñoo ŋànk police wala sax gendarmerie waaye nag rencontre boobee dañ koo faral di def lundi su nekk wala sax altine bu jot rek ñu def benn rencontre ak ki nga xamante ni mooy président de la république du Sénégal waaye nag dañoo nemmeeku lundi bii nii rek ñu génn rencontre amul ki nga xamante ni mooy Macky Sall ak le directeur général de la police ak kii di le haut commandant de la gendarmerie et le chef major général de armées lu ko waral nag calendrier wala sax agendant bu chargé bu Macky Sall loolee sax moo tax ki nga xamante ni wala sax rencontre boobee rek amul kon nag mbokk yi jàppale ni kii di président Macky Sall jamono ji jël na ay euh, main ferme wala sax jël na ay décision ferme ngir interdire lépp loo xamante ni manifestation la wala lépp loo xamante ni mën na taal bi wala sax yàq ay matériel u jàmbur ndaxte kii di euh, président de la république du Sénégal moom rek moo assuré lépp loo xamante ni sécurité la des biens et services des euh, moom rek loolee sax moo tax mu rencontré ñoo ñee nga xamante ni ñoo ŋànk police wala gendarmerie mu doon rencontre boo xamante ni ñu bëri dañoo jàpp ni euh, kii di Macky Sall dafa bëgg a dooleel lii di les force de défense et de sécurité ngir ñu mën a jàmmaarloo képp koo xamante ni dafay jukk di manifester fii si